وجهت وجهي لمن كريم بانا جزار مولد من بالبار ربنا وجهت وجهي لمن كريم بانا جزار مولد من بالبار ربنا

gis nga Seexul Xadim mi nga xam ne yàlla may na ko lu ne mane na lu ne waaye terewul ci exposition bi wax nañ ne bi mu sancee Touba dafa dem jëli ay kilifa sancal leen fi kon war nañ caa jàng ñun murid yi xam ne bu ñu boolooyee lépp luñ bëggal Serigne Touba danañ ko man war nañ caa jàng itam jub ndax boo jubee ci ngay mën a muñe te ku muñ te daa nga fekk la fa nga dakk ndax ab jullit moom muñ rek moo koy may ndam ëllëg kon mënees na cee jànge ay njàngat yu bëree bëri lii ci ëpp solo it bokk na ci jëmmi Serigne Modou mi nga xam ne moo tax lii lépp am tey ay doxalinam am na lu ñuy wax ci exposition bi ci nu mu daan jëflante ak daara kaamil yi loola yamutoon sax ci ab dund bu fa daan yóbbu nit ñëw na ci moom ba tàyyi diis ko soxla bëgg mu ñaanal ko ci yàlla dogal. sëriñ bi daf koy wax na ko demal daaree kaamil sàngam yóbbu fa liin sàngam boo ñëwee ma door laa ñaanal loolu def na ko budul benn yoon du ñaar yoon def na ko yu bari muy ay jaamu yàlla yu nëbbatu yoo xam ne ku sell rek moo koy def ci biir loolu yit ànd gi nga xam ne moom la àndoon ak jëmmi sëriñ àll yu ji jëmmi sëñ Fallou leen ko boole woon dara waralu ko woon lu dul bëgg ñu liggéeyal sëriñ Touba loolu gàcce ngalaama xottal nañ ko ñoom bi muy ànd ak sëriñ Modou laleen leen sëñ Fallou boole woon ñaar ñii rek ko man lii nag sëñ Fallou sëriñ Tuubaa dafa amoon lu ci waxoon ci koo xam ne dafa ñëw andi ab jarbaatam boo xam ne dañ dañ ko doon door a jox sëñ bi ñaanal yàlla jubale teeñu leen a ñaanal ñu jub ba noppi doo leen a ñaanal ñu juboo ne ko xanaa xamoo ne bari na lu yàq ci àdduna ci ñaar ñu juboo ci jubu ñoo koy yàq maanaam ñaari ñaari jëm yii nag muy jëmmi sëñ Modou Moustapha Falilou ak jëmmi sëriñ Aliou yàlla na leen yàlla dool yi leer bañ di leen sëriñ Fallou doon boole mooy xam na yii ci ñoom ba xam na ne buñ juboo rek danañ sottal lu bari ci liggéey bi saam danañ njëkk liggéey bañ demee saam yabal nag mooy sëñ Aliou sëñ Modou dafa xëy suba teel woo ko mu ñëw mën ne ko dugal ci tund bi lu fi yàqu nga defar ko loolu rek la ko wax ñu takkal ko sareet biñ ko takkalee sareet mu mu dugg tund tund tund njëgëj woowu dëkk bu mu dem la muy njëkk wax mooy bu wàcce laa ci borom dëkk ba nag ana ñu ko wala ay mbokk yu fi buñ ko waxee mu ne nañ ma leen andil bu guddee ci bari sutura gi du ko def bëccëg buñ ñëwee mu wax ak ñoom ba ñooña ñu fa jógee dañuy mel ni ñu bokk ndey ak baay ci yàlla jubale leen boo ko defee ba mu daj ñu takkalaat ko sareet bi mu ñu gis ba mu ñëwee dékk sëriñ bi ay loxoom mu ñaanal ko loolu rek wane na exemple mooy que ne sëriñ Fallou sëriñ Modou Moustapha Fallou bi doonu toon sëriñ buy nax taalu bi sëriñ Aliou yi doonu taalu bi buy jaayub sëriñ li moo leen boole woon moo tax ñu sottal lii ñu sottal kon nag kat bi xamaa naa du mën a gudd ndax dañuy dem ci ci tànt ba waaye sant nañ leen gërëm leen ci lii ñu fi jës yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla def barke soxna si liggéey bi sell na am na solo ndax euh, bu dul lii itam yàlla dogal na euh, xëy na suñuy gëstu kiiwut waaye dañuy gëstu nag dañuy gëstu ci wàllu euh, yu bare bare bare ci wàllu yii ngeen di yëngatu danañ ci am danañ ciy gëstu ba kon euh, lu ci jub danañ ko xam lu ci meloon neneen nit danañ ko xam waaye liñ ci gis lépp a tege ci yoon ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu suturaal leen te def leen ci defal leen ci ndam loo xam ne da ngeen ko séddoo ak seen i bokk séddee ko mboolem ku ngeen ko yéene ca du jeex jërëjëf jëfas Muhammadul Wadaa